ko waxee comme ni nga ko comme ni nga ko waxee rek ah. ñu ngi en direct euh, le ministre bi si mbéyku na sol na t-shirt bu noir joxe na joxe na joxe na loxo gauche bi voilà voilà ndeysaan ñu ni ministre baa ngi nii ñuy vacciné ñu ngi nii ñuy vacciné voilà voilà voilà voilà ministre baa ngi noonu ndeysaan ñu ngi leen wax vaccin yaa ngi nii dañuy doon commencé vaccin ñu ngi koy fomb ndeysaan ñu ngi koy fomb jam na ko waaw waaw jam na ko ministre bi ndeysaan ñu liggéeykat la voilà ministre bi ñu nii un bon exemple ñu ngi koy tàccu leen voilà voilà ñu leen wax vaccin yi commencé na vaccin yi commencé na Sarr vacciné ba pare vaccin yi Sarr vacciné wu na